ñun Afrique suñu science bi bu fekkoon ne jëmale nañ ko nee naa la la science doit pas être contre les hommes mais doit être pour les hommes mais pas contre les hommes. boo déggee la science mooy njabar bi ñuy def. mooy xam-xam xam-xam warul nekk au détriment des peuples dafa war a nekk luy sauver peuple bi. mais ñun Sénégal suñu xam-xam maanaam sëriñ yi ñu tuddee seen bopp signal ak ñiy lasraar yëpp lu bon lañ gën a mën. Hmm. peut-être la science doit pas être il doit être au service des hommes mooy danga war a am lu la jafe ci sa àdduna am luy problème nga dem nit di ñaanal la nga réussir wala mu ñaanal la nga nga egg fi nga bëgg a egg wala mu ñaanal la ci yàlla nga am ndam wala mu ñaanal la nga mucc ci cat mais ñun sunu sunu xam-xam yépp yàq maa yàq diw. maa tee am ndam kii. Mm-hmm. équipe bi am na ku ñëwoon si man ne ma nangam. mais c'est du lâcheté. Mm-hmm. léegi nag ñun tamit on fait la promotion de ça. parce que man su ma toogee Sénégal en au vingt et siècle ma gis télévision ñu teg plateau télévision dëkk Mame Bamba ak Limaamu lay dëkku Alaaji Malick nga xam ne Alaaji Malick lu mu liggéey ci diine loo ko bañ bañ bu timis jotee tàkkusaan bu jotee jàpp tisi naa si xaq bi la xaq bi dalay lay dal Serigne Touba waxatuñ ko dëkkam boobu tey ñu toog ay ay njabarkat ay féticheur di leen mettre en valeur biisu ngóone loolu duma ko ko baal ginaar googu ñu rey na xam ne yàlla dina ko laaj ci bàmmeelam Sénégal lu tax lu tax sénégalais amul yërmande imaginez booy loolu dañuy jàngal sax xale yi agressivité parce que gis nga télévision. Mm-hmm. lii kese la informer. Mm-hmm. éduquer mm-hmm. distraire. ñett yooyu moo war a doon sa priorité information yar ak féexal xol. féexal xool bi nag nga yóbbu ko ci ay éthique yóbbu ko ci ay idées yu rafet yóbbu ko ci patriotisme même ay théâtre yi ñuy def dafa war a xiir jeunesse bi ci bëgg lu baax xiir jeune même booy def théâtre da nga ci war a dugaale civisme dugalaa ci jikko bu rafet mais même suñu théâtre yi dañuy dañuy copier même suñu téléfilm yi dañuy copier te mbon la ñuy copier booy dañuy copier mbon mais ñun novelas nañ ñoo koy bàyyil kon parce que novelas jigi tubaab ak tubaab buy fóonante mais loolu du cas du cas loolu du cas parce que ah ay tubaab lañ mais li dangereux nit ku ñuul tudd maam Bous maam Jaara wala mu tudd ay Aysatu wala mu tudd Leena. Hmm. nga tudd Moussa. Hmm. ñuy def ay seen yu obscènes. mais loolu moom mooy def leen ko c'est possible. loolu mooy def leen ko c'est possible. di simbi lu garaaw ci télé bi lu garaaw. léegi nag man foofu laay waxee munu ma nangu ñu jël ginaar muy doomu jàmbur. Hmm. yàlla teral bi mu ñu teral. moo tax ñu am sañ-sañ ñoom di leen rey te du am bàkkaar. ñu jël ko xoj ko ba mu dee. loolu xoj la. pour wane ni man mën naa dara. loolu xoj waa léegi ñoom seen mën dara lu tax wu leen dans le bon sens. mais nee naa la science doit être au service des hommes pas contre les hommes. nee dañ koo jàpp ba. wuyu ma dama la la science au service des hommes pas pas contre les hommes dama ne la euh, xar baax. ak mystique. Hmm. dafa war a nekk luy jariñ mais warul dox luy roy luy lor. mais imaginer bëgg ñu gëm la nga rey mala mais loolu c'est violent ba pare ay nit toog di la seetaan ak droit des animaux anamu ko constitution dafay tere ko toroxal mala xanaa xamul loolu. déedéet man pour man tubaab yi rek ñooy def loolu tubaab yi rek ñooy bañ. boo doo fa rey ginaar de. bitim léegi tubaab yi dañ ñoo gën. ah foofu doo fa rey ginaar fii. te ñun ay jullit lañ. làmb ji gis nañ fi ku sëriñ bu ñëw dugg ci stade bu kuttu bopp ginaar bi tëmbal fa rek. mais c'est injuste. mais xam nga mën naa ne sax nga jël paak nga dawal ko quelque soit anniversaire moo tax nga rey ko wala da ngaa kontaan rey ko mais garaawul sang nga am nga droit boobu. Hmm. mais da koo xot bës ko loolu booy boo ko bësee nit sax mu dee ba pare di wax te lim ci jublu yëpp pour hmm. ñu gëm ko quoi mais mënul am beneen scène bu mu def ñun xoolal. bu dul bu dul rey xoolal yi ñu am si Sénégal. am nga xar baax am nga baatin. Hmm. mais fekkal ku ñàkk nga fexe mu am. loolu moo amut fii. loolu mënul nekk ku amul fu mu dugg nga ñaanal ko ba mu wut ba mu am këru boppam amut fii. yow dootoo publicité sa bopp de. Mhm. kooku mooy wër di la publicité. fi. <laughs> te man ñoo Sénégal laa bu toog. Mhm. di publicité boppam. soo amee xam Serigne Touba ban télé moo ko mos a wane. Mhm. ay jamonoom télé amul. benn nataal la te ñu ngi naan moom la wala du moom borom baraag bi te kan moo ko xamul. ñëpp ko xam une figure emblématique. Mhm. àddina yëpp ñoo ko xam. te ba muy dund tele amul rajo amul kon su ma gisee kii simmeeku taatu neen pour siiw kuy wax lu ñaaw pour siiw kuy wax kàddu yu ñagas pour siiw ku yàq deru nit pour siiw. Mhm. lu baax mooy publicité boppam sëriñ bu toog naan la mën a mën a mën a goo gis du moom yow a yow a moo wóor xam-xam da koy def ci le bon sens mais Afrique Sénégal loolu moo ñu du dem ak ay ak fee amoon départ. Mhm. lu tey demut dañ koo kar lu tax koy tukki du tàggoo Sénégal la xew yeneen dëkk yi booy tukki da ngay tàggoo Sénégal eh proverbe boobu Sénégal la am. booy tukki doo tàggoo tàggool nga xam. takk jabar képp boo ko teelee yëgle doo boo maytuwul takk gi du am baa ñooy takk la nga yoom. yooyu Sénégal la xew te yooyu dañ ko war a dind suñu xel dañoo war a bàyyi soxorante beeg ñaanante bi bàyyi hypocrisie bi Sénégal moo am booy tukki doo tàggoo pour pourquoi booy tukki doo tàggoo booy tukki di tàggoo doo dem mais booy dem ay Casamance ak yooyu garaawul pourtant ñu pourtant sax su nga dégg suba dama dem Diourbel. parce que foofu yaakaaruñ dañ fa am dara moo tax kenn du la ne doo dem mais dama dem France wala damay Italie wala damay dem Espagne wala sama visa nii suba dem. doo gis <laughs> da ngay fanaan am na sax benn gaan moom nee na benn copain am benn euh, ay mbokk lañ nii rek ñoo fanaan ci benn làmb muy dem ba Italie téléphone loo woo ne ko maa ngi <laughs> yaakaar na ni <laughs> mbokk yi mbokk yi maa ngi di jaajëfal bu baax ndax xam naa ne corona euh, bi bu ñu toogee fii ba ginnaaw suba li ñuy wax du jeex te ginnaaw liggéeyu internet temps bu yàggee.